du am naa yaakaar damay gañe damay gañe d'office damay gañe d'office un ci li nga xamante ne yéen tey jii moo di moo di seen bilan de campagne par rapport ak projet yi ngeen xam ne am ngeen ko euh, ci ci ci ci ci ci réew mi Sénégal ci jamono bu ñu toll nii ak ci différents secteur yi. am nga xam tey Khalifa Ababacar Sall suñu programme de campagne dama la ciy tënkal rek du ma tënk lépp. tey formation bi nga xam ne ne tey am na fi bu njëkk boo xoolee ba jooni tey jii di nga ko protiser tey boo nekkee dans l'APR yow yaa gën a mën a bénéficier wu bourse mais Khalifa Sall politique am melul woon noonu est-ce que yaa may dégg tey c'était effectif tey ñëpp a doon santé bourse yooyu ñëpp ci la ci daan dimbali muy du xàmmee kii ci man la bokk xàmmewul kële ci man la bokk xàmmewul kële ci man la bokk programme boobu la bëgg dët ma laat ku amul xam-xam ku jàngul musoo toog ban école musoo toog l'école li ko gars yi dooxee sénégalais lambda bi ak village bi musul toog l'école wala musul am xam-xam Khalifa Ababacar sàll def na benn approvisionnement sur le terrain ba nga xam ne ne am nañu méthode bi nga xamné ne ne dinañu mën dimbali ndaw yi 80% duma né 100% 80% ma nee cent bu ñu bokk ci société bi bokku ñuy dogal bokku ñu ci xalaat premier point ci formation deuxième point waaw ba tey est-ce que deuxième point yokkaat ay équipement des classes xam nga Khalifa bu muy nekk maire de Dakar looloo nekkoon liggéeyam surtout bi nga xam ne ne moom la gënoon tënku dafa doon xool école yi nga xam ne ne ñu ngi ci ci ci ci ci ci Ndakaaru te ñu tëjoon ko ay at mu tëjjiwaat ko réfectionné waat ko joxaat leen ay équipement pour école yooyu noonu mën na gën a doxalaat seen liggéey yu ñu doon dox loolu dafa bokk ci xalifa Khalifa Ababacar Sall lu muy dëgmal xam nga tegaguñu programme lii sama vision bopp laa lay wax nii mes objectifs visés parce que lii ma lay wax damaa wóor na ne ñu ngi koy toog di rédiger à cette heure di ci xalaat man loolu daf maa leer parce que Khalifa Ababacar Sall ñun ñii di ànd ak moom. programme bu taxaw Sénégal fu ñu toog lu mu ñuy sonal jàngi ji leen wuti ji leen xam-xam. ndaw du tok même boudé monisé monisé, même boudé plombier même boudé infographe même boudé journaliste même boudé lenen chaque jour ci loolu lañuy teunk Quand kon ci walum éducation ak formation la Khalifa Sall du ñu gën forger ci walum santé Khalifa Sall yalla ñaata maternité yi nga xamné ci bir Grand y rek ñaata poste de santé bu muy nek maire de Dakar lu ñu réfectionné waat lu ñu defaraat mu démon ba diko décentraliser au niveau des régions ci la ko Macky Sall ne képp tëj ci kasso bi. tamit monsieur monsieur Diack li gëna sonal askan bi bokk na ci euh, euh, dund bu cher bi nga xamné ñu ngi koy dund. donc allez-y allez-y juste dama bëggoon dolli rek comme ça nga xamné dañuy da ngay ñëw ci li nga xamné mom la askan bi di gën di xaar bokk na ci dëkkuwaayu cher yi dund bu cher bi. jamono ji sur le marché ñi ngi wax kilo kilo kilo kilo soble mi ngi ci 1500 euh, donc bëgg naa également tamit nga ñëw ci yow nga walum loyer bi l'État est avec, avec euh, l'État est avec le, comment dire les 3,5% des propriétaires yi nga xam ne ne ñoo moom kër man loolu parce que tey yow leeroon nga waxoon nañ fi diminution des loyers mais on l'a pas respecté ma soeur on l'a pas respecté on l'a pas respecté même numéro bi ñu joxoon juste numéro vert bi c'était combien ça numéro am na benn numéro vert bi ñu mais da ngay woote toute une journée day sonné ba sonn man je sama këru bopp dama loué mais li ma fay démb ba fay te loolu du yoon dara te amuñu comité mais loolu on va le respecter mooy diminution des loyers force day am parce que mënuñoo nekk ci réew ba même budul diminution des loyers terre bi nga xam ne ne ñu ngi koy jël suñu suuf si ñuy jël di ko jox italien yi di ko jox les hollandais di ko jox les portugais ñoom ñu siy investir di si def seen wàllum agriculture lu doy waar ñun les doomu sénégalais nous les sénégalais lambda tey bu ñu demoon tey pour am crédit sax pour mën a liggéey ci loolu ñu ñu koy bañal système boobu yëpp di nga ko war a changer. jaarale ko ci ban proposition. Euh, jaarale ko. Nous ñu xam li nga xam ne Sénégal yi at magum Sénégal yi te bëgg liggéey indi projet proposé commission bi nga xam ne am transparent am visibilité fépp fi nga xam ne sénégalais nekk fa am terre vide nga xam ne war nga koo mën facilement mais nag na mécanisme yu nekk ci suuf yi nga xam sur le plan logiciel pour gëna mëna def massification boobu pour sénégalais bu né don acteur pour sa pour pour pour développer ce pays lolu ñu ngi ci xalaat bu baax a ba bo ñëwé tamit ci côté cher bi ñuy wax mais la vie est chère ma sœur tay dama lay laaj ben question ba ma laaj la parce que yow bëggoo ma lay laaj question li nga wax sànq man maay invité bi mais j'adore j'aime bien ma wax la beneen affaire je reviens sur ça c'est-à-dire kii yeewu këram joxe dépense 5000 exemple xam nga ni mille bi benn repas rek nga ci mën a am muy ndékki peut-être ak añ ndékki bi sax doo ko ci boole petit déjeuner doo ko ci boole añ rek nga ci mën a am ndugg yi lépp a cher man parfois je pars marché damay xuloog madame ne ko non man maay demal sama bopp marché mais bu ma demee ndugg je suis ému 5000 laa yóbbu bu may ñibbisi li si des du mat 100 francs boo jëndee ceeb jënd diwlin jënd leneen lu muy ànd ak lépp boo ko ñëwee du mat li des.

diko jël diko exporter diko yobbu benen rew lolu fokk ñu arrêté ko wala fokk ñu diminuer ko parce que ñun doomu ndaw yi doomu sénégalais yi ñoo bëy ba paré bu ñu béyee ñeneen ñoo jënd ko ci ñun yobbu ko seen rew état di sétan lolu état ñaata nit ñaata ñaata ñaata ñaata ñaata bor la amel ñi nga xamné tay ñom ñoy les cultivateurs nangootuñ leen fay Nous retourner eh, eh, les européens les hollandais les portugais di leen ko jaay ñoom indi indi dañ bu ñuy dugg ci bateau port conteneur 40 pieds bu mu fees soble bu mu bu mu pomme de terre ñu koy yóbbu seen réew yi wala léegi dañoo dem ba jël terre signer des conventions de 10 ans de 15 ans exploité ko extraordinaire jël ko léegi yow mii Sénégal lambda bi buñu ñu buñu bu prix bobu non yow da ngay japp ni réew mi moo doxul wala réew mi amul dara wala réew mi deful lenn mo waral booy bari di jaar ci bateau bi alors que le désengagement de l'état moy mooy joué ci loolu. donc yéen jàpp ngeen ni état bi dafa bëri ci dafa am désengagement bu garaaw ci walum dundu doomu aadama yi la vie est chère ma sœur te fii ñi fi fayeeku. Euh, salaire maire maire ku ci rombul francs xalaatal nga fan ngay amul minimum minimum 150 000. chambre minimum minimum 50 000 wala 000, 000 am jabar ak war dépense chaque jour am sagaru war def essence yow problématique bobu exposé est-ce que war nañ a élection xeex fii reyante fii dóorante fii lii ak lii. non ma xam nga du ma ne. xam nga su ma ne kii dina fa bokk élection maa ngi waxee ci ban sens. Mhm. ci ban canal laay waxee c'est-à-dire am na problème yu gën a nekk priorité yu gën a nekk priorité yu opposition bi war a xeex. ba sénégalais lambda bi reconnaître ñii kat lii ñuy xeex suñu sonn la wala suñu coono la wala suñu endurance la ñiikat kat xeex gi ñuy xeex dëgg bu wér la